ci sama xalaatu bopp ak sama ngëm-ngëmu bopp ak sama gis-gisu bopp maag ñi ma ko àndal ñëpp ñi ma tollool dimension bi mooy danoo am koo xamante ne bii moo nu wax ni moom mooy sauveur de l'humanité ndax dafa yem ci wax ko rek wala dafa daj lu nekk pendant 33 ans ba jot kun fayakunu ba tax mu ni kun fayakunu bi bam sachin moom moo wax ni solution problème bu mën a am mi ngi solution bi moom moo ko wax te xam ngeen ni suñu réew mi façon élection yi fii xew ak ak yi fii kii bu dul woon ak yërmandeem ak xasaay yi ñuy jàng fu nekk lu ne xew na fi comme ni muy xewee ci réew yépp loolu laa bëgg Sénégal yi delloosi ci seen xel moom moo wax ne laana liyal xulubu wal abdaanu lin xaldatil biidaanu wa sudaanu ñu weex ñi la njëkk a tudd ci ñu ñuul ñi ñu weex ñu lu nekk ngay xew ci ñoom moo xam ca arabe ya la moo xam ca anglais la moo xam ca américain moo xam ca asiatique yi la lu nekk ngi xew te bu ñu dàkkaafuul gis de ñoo ngi dégg diggante yooyu jamono yi diggante kore ak États-Unis ak yooyu bu ñu dàkkaafuul nit nag mënta joxe lu mu amul mënta dàkkaafu ci lu mënul dara ñoon ko tedd ki li mu wax dënn koo gëm nu bëgg président Macky am y suggestion une suggestion ko jox bo xamanteni bi bu ko Sénégal lay doon moy lan amal ben correspondance adresse ko ngom à travers le monde ni len problème yi am solution solutions. fi fii bu ko Je man ci sama façon xamna na ma ndax dafa am gëm pourquoi rek sept la as-Saoudia Arabie Saoudite problème ñoom ñoo jël juróom-ñaari imam ñu signé benn lettre ku ci nekk def sa tur def benn cercle def sa tur ca biir ñu yebal ndaw mu fekk ko fii njaareem pour mu ñaanal leen foofa ni ko yaanu gën a jege yonent bi alayhi salaatu wasalaam gëm nañ ni yaay xaadim rasul fii Soudan mu jël juróom-ñaari bayit ma laaj ko sama borom ni wëriñ dellu si bind juróom-ñaari bayit jox leen bañ demee li ñu bëggoon faju waaye loolu mi ngi fii mi ngi ko tàmbalee ya rabbi bil mustafa al muxtaari min mudari shafihi ummatihi fil badwi wal hadari fafa la yonent bi feeñe ndem ñoo ñaa koy ñaanloo moo tax solution problème yi weesuwul ñaar yi shifa min kulli ak tay surul ansir shifa min kulli mooy luy faj lépp tay surul ansir mooy luy yombal lu jafe na ma ki essayé xool <laughs> ba xam ne ci am ndamam ndit xam nga fi ñu nii dafa am loo xam ne doo ko am ba noppi bàyyi ko mu ni ñëmm te doo ko seet toujours ma wax ko médecin bi sax bu ko feebar jaaxalee bu duggee ci laboratoire bi day xool day def ay recherche xool ban garab moo koy mën a faj te fekk médecin bi moom day faj waaye pour mu faju yàlla lay doon waaw yéen ñi yàlla moo leen jox métier malaaka médecin yi yàlla moo leen jox métier malaaka ñun ñii ku nekk da nga am raqib ak atid ñoo bokk